Euh, on termine avec on termine avec euh, Barthélemy Diaz Nous, avons aussi, le quotidien le mm. quotidien aussi euh, législative législative le quotidien bu qui nous dit la paire sous tension dans le Fouta hein, hypothèque sur le TF démission de Maître Malissal et menace de boycott à cause des infrastructures qui tente de remobiliser ses troupes ses troupes comme Euh, la gën a nemmee la leen fa bëgg na gën a seetlu mais titre foncier bu Macky Sall bi fi ñu toll dañ ko menacé de ah mais su fekkente ne Macky xam nga moom euh, Abdoulaye Daouda Diallo moo ko fa demal mhm. léegi Abdoulaye Daouda Diallo ku muy jàkkaarlool Cheikh Oumar Anne lay jàkkaarlool mm. bu jàkkaarloo Cheikh Oumar Anne dina ci teg kan dina ci teg Racine Sy mhm. Racine Sy am na liste am na am na liste boppam mhm. waaw léegi ñoom tamit boo leen dajalee ñoom dèjà ñett lañ mhm. ci wet gi il y a le ministre de la santé bi nga xamante ne moom moo fa dem si je ne m'abuse pas Ibrahima Sy moom moo fa teewal état bi moom la moom mooy bokk na si ministre yi ñu bàyyi ñu dem seen base campagne ci kon boo ko comprendre dèjà kaata ngi noonu taxaw ci titre foncier boo xam ne Macky Sall kenn la daan teg ñëpp daal di laxasoo ñëw léegi ñoom ñett bu ñu diviser seen force est ce que bu ñu defoon Ibrahim Ibrahima Sy du leen jiitu donc loolu tas tasaaroo bi dimbaliwu len hmm. te li tax tay ji mu gëna metti si ñoom mooy su fekkente ne Aïssata Tall Sall bi nga xamantene ne na mëna ñëw renforcer fofu non tay ji bien vrai que mi ngi ci liste nationale bi mais euh électoral amna ci lo xamante est-ce que mi ngi koy conserver ba tay mais qu'est-ce qu'elle pèse euh, en termes d'électorat d'électorat Aïssata Dame Sall. ah Podor de Podoram la won je sais plus nag actuellement ndax ba légui Podoram la ba tey. Hmm. du ñak résultat yi élection présidentielle yi. Hmm. wanako mais li am ba des moy ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci photo Malick Sall mi tey jii nga xamante ne Macky Sall ministre defoon na ko ministre de la mm-hmm. justice war na ginnaaw Macky Sall parce que mi ñu investir ba pare gisu si boppam mm-hmm. moom mu daal di claquer la porte dem mm-hmm. léegi Abdoulaye Daouda Diallo bu waree daje ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Oumar Anne bu njum war a daje ak ki nga xamante ne l'autre là Racine Sy

élection du président dina génn campagne. il y a une chose boo xam ne neex na ma si ñoom Kumba mhm. Gadio. ay euh, transhumance euh, ñoom vraiment loolu cautionné wuñ ko te man jàpp naa ne.

wala ñi demul dañ daan toog yaru di fëgg ci bunt bi yaru nag jàpp seen jàmbur mm. naan nañ leen bàyyi ñu liggéey maa ngi négocier suuf mais ñi boo gisee dañu dañoo dugg tëj bunt bi mm. yéen ñi nekk si biti mais dangeen ngeen mais da ngeen instinct de survie moo leen di yëkkati ñii dañuy mm. fëgg bunt ñu xeer di dóor moo waral dañu toog ñaari weer ñetti weer xool gis na ñi ubbi ñu bunt yi pour kenn dugg ñu ne léegi nag kon pexe jeex na foog ñu taxaw jàkkaarloo ak ñoom léegi suñu ba façon de faire la woon tamit maanaam da nga yuuxu dóor dóor dóor bu ñu tijjee dugal la wala ñu tijji jàkkaarloo ak mm, yow. Mm. parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni tamit euh, ci ci ci ci ci ci régime Macky Sall mu doonle ko ci Abdoulaye Wade ñemewu ñu woon critique ak ay attaques. Mm. ba ci yenn journalistes yi noonu lañu doon noonu lañ doon amee xaalis wala noonu lañ doon liggéey ak ñoom. maanaam da nga daan nekk si benn rédaction nga gis ku ñëw ne la directeur nangam wala ministre nangam dama koy attaque mais boo ko attaqué benn texte rek sa ëllëg sa wala ci ngoon ga mm. chargé de communication wala ministre bi am personne daal di lay woo. Mm. lu tax nga def lii nangam ak nangam jaaral bureau ñu waxtaan. Mm. am na ñoo xamante ne dañu ragal politique. dañu ragal autant pour moi critique. Mm-hmm. léegi nag ñooñ bu ñu nekkee ci opposition bi dañ naan su ma tiiree su ma fitalee su ma dóoree amaana nañ ma faale wala nañ ma wuyu. Mm-hmm. loolu moo waral tey ji ngay gis affaire bi nekk en ébullition mooy opposition bi tàng mel ni ñu fi def 10 parce que euh, transhumance bi ñu bloqué la nag dafay dafa dafay metti si ñoom bloqué de hein? man je suis d'accord ah mais lool mooy yoon politique dafa war am éthique ñap xana xamo euh, transhumance bi loolu moo taxoon euh, cette génération de Mustapha Niass de mm-hmm. feu Ousmane Tanor Dieng ak ñi nga xamné mo moo nekk suñu papa yek suñu maam yeeg suñu yaay ñu nekk fi depuis les indépendances mm-hmm. parce que ku tok rek da ngay gis xëcc leen xol nu ñu defee si li nga xamné mo moo nekk si ay ay alliance wala sax ay mm-hmm. coalition de parti de ce fait nga xam ne moo nekk cette renouvellation gén euh, renouvellement euh, générationnel si li nga xam ne moo nekk si espace public bi duñ ko am day nekk une groupuscule de personnes boo xam ne ñoom ñooy séddoo alali askan wi mhm. et là man je suis parfaitement en phase avec Pastef mais da nga da nga ngay dégg sax benn benn umpul taxaw ne man du ma opposé pourquoi mais yaay gan ba doo opposé wu xam te yàlla miy may sax day may ñi di xañ ñi yow nga toog nga ne man non man wax dëgg yàlla man du ma opposé wu ah mm. c'est-à-dire bu ñuy gagné tamit man dinaa xool ban moyen laay def ba dem liggéey ak ñoom mais man du ma opposé wu mm. boo décidé politique boo dee homme d'affaires nag mën naa la ko d'accordal mais nga décider def homme politique parce que kooku mais nga décider def politique ñu dóor leen nga battre campagne am programme boo proposé Sénégalais ñu bañ. Mm. nga taxaw yàkkale lu nekk musiba bu ne. ñu gagné leen quelques jours après nga doon taxaw naan wax dëgg yàlla yow mi doon wax ci plateau yàlla wadigu diwa yaru mm. mais am na ñoo ne boo leen déggee actuellement discours bu ñuy tenir jëmale ko ci Ousmane Sonko da nga yéemu si yàlla euh, Coumba Gadio moom xam nga dafa moom jaar de moom jege na ñële tamit de fi ñu toll xam nga moom moo nekkoon moom de dèjà dafa waxoon ne moom Ousmane Sonko doomam la. waaw doomam la ba affaire yi tàngee kenn gisatu ko woon léegi fu mu toll nii day fa gàtt. jege na tamit. Ah, léegi ñu xool Sonko nu muy def ak moom nu mu wax moom neen da leen soutenir. waaw d'accord. waaw mais xam nga. doy na waar daal boobu moom noo koy jugé. <laughs> xam nga tey ji xam nga politique te si. si li si sax def na gisuma ko ci ginnaaw raay la la la la demee woon. wala moo ko après dafa clashon. après dafa jafe-jafe ak. gis nga pour man moom mam jaar dafa dafa dafa dafa am fu mu quoi. soxna mm. soosu wax dëgg yàlla parce que jege woon na Sonko moment bi. Mm. assemblée nationale amoon fa taxaw bu am solo. Mm. waaye dafa dem ba moment nag waa PDS këf ko te gis nga politique parfois da ngay assumer ses responsabilités. Mm. wa am benn lecture politique. Mm. xam na ne PDS Ousmane Sonko moo leen ëpp avenir politique. Mm. donte liste wa intercoalition bi nga duggee. waaye waroon naa xam ne avenir Sénégal fi ñu toll nii. wax dëgg yàlla Pastef la gën a jege ko PDS. Toussaint Manga a très vu juste moom ba mu xoolee gis affaire yu lëndam ci la jël ay bagages am ndànk dem intégré ji Pastef. moom na jege woon na leen de jege woon na leen jege woon na leen dem sa di lijjanti kër ga. ah oui jege woon na leen mais malheureusement après mu dem ba clash am seen diggante. mu jël position taxaw ne jàpp ñàmburam ñële tamit jël seen jàpp jàpp jàpp seen ñàmbur mais bu continuer woon ba heure bi nekk ci Pastef certainement mën nañ ko dugal ci liste yi mais malheureusement am na taxawaay yoo xam ne boo ko amee daf la yàqal mm. moo tax ma ne politique parfois nga ci am ci lecture mm. dafa am solo mm-hmm. waa il ne sert nga jàppandu di fëgg ci benn bunt boo xam ne du ma sa ubbeeku mm. mais moom bokk na si nga xamante ne wax dëgg yàlla bokk ci yaayu Sonko ah. mais malheureusement après dem nañu benn moment excellent après xale loolu ko doon tool tooñee sax. Ah, donc yooyu euh, dafa neex a yaayoo nag. surtout <laughs> jamono ji <laughs> amoon nay jamono de yaayam laa ci dëkk bi de. instant <laughs> eh. eh, yi bu mu toll nii ñëpp a ngi xëcc Sonko pour doon yaayam ak bàyyam ak. Eh, ay Aïda Mbodj daal loolu moo ko si dimbal Aïda Mbodj depuis assemblée nationale bañ koy accusé yaa ngi fàttaliku moom moo nekkoon son avocat Aïda Mbodj tamit nguuru na de tamit cette dame là aussi waaw yàgg na. Aïda Aïda depuis socialiste yi. après mu Macky la Ah, waaw moom Macky la opposé woon su Macky laalul dara. mais socialiste yi la après libéraux yi. def break ci Macky après mu ñëwaat ci ñoom Sonko. ayda nguuru na daal. waaw yàgg na de. waaye <laughs> ah, bàyyil tooñ. ayda suñu bàjjen ayda Mbodj. suñu bàjjen ayda. naak suñu def bàjjen ayda Mbodj ñu koy ziar bu baax jokko waat ci waat mais Moustapha euh, hmm. titre foncier. Euh, hmm. politique euh, nu mu taxawee est-ce que mën nañu wax ne carrément mbirum titre foncier taxaw na. non mën man gëw ma loolu xam nga lu gëw ma loolu. nit ya gëna fee wax fii moy sama titre foncier. Mm-hmm. titre foncier nak ñep xam nañ ko xam ne titre foncier xam ne du bay wa en tout cas. wa titre foncier do ko ñaké non mm. wa titre foncier te politique fi titre foncier mënu fe am. Mm. ay jamono moy am. Mm. fi gox bo fi gis rek am na koo xamante ne ma sa rek dagana est-ce que élection yi passé ñom ñoo gagné dagana. fi gox bo fi gis rek gox bo fi gis rek am na leader bo xamne ne nako na ko ne fi maa ko mm-hmm. mais jamono day dem ba si yàgg euh, ken dootul la gisati nga mom nga nga nga nga parce que am na yeneen leader yu juddu. am na ñeneen ñu ñëw mi ngi mel ni Louga ak socialiste yi Louga mm-hmm. socialiste ñoo ko daan gañe fu ñu toll mm-hmm. ñoo ko daan gañe fu ñu toll Aminata Mbengue Ndiaye et consort yàgg nañoo gañe Louga xalaatuñ ko woon ñàkk depuis Diouf ak yooyu noonu Louga seen seen seen titre la woon mais Moustapha Diop moo ñëw renversé Aminata Mbengue Ndiaye mm. léegi Moustapha Diop est-ce que mën a taxaw mu ne Louga mooy sama titre foncier Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow ak Abdoulaye Wilane mm-hmm. donc euh, kon am na ay yu bëri yoo xamante ne dafay toon ay jamono rek léegi nag euh, di nga toll foo xamante ne après da ngay def euh, li nga xam ne moom nga tuddee sa titre foncier après keneen ñëw wuutu la fa remplacer la fa jël ko kooku tamit keneen dina ñëwaat jëlee ko fa. Mm. mais boo déggee ñu naan titre foncier c' est une façon de parler. pour mm. wane ne fii ñoom ñoo ko moom fii ñoo ko moom voilà base la fii ñoo ko moom mais moo gën a di sax base. parce que mm. fii sama titre foncier la euh, da ngay dégg ñu ne Fouta titre foncier Macky Sall bi la mais titre foncier actuellement nii nii nii ak ni ñu demee nii tasaaroo nii nii nii arrangé wu leen. parce que fa raw gàddu la. vote technique, vote affectif. mu ngi am ba tey au Sénégal. Ah, c'est notre réalité bien sûr vote ethnique dafa am ba tey. Hmm. vote affectif dafa am ba tey. nit hmm. da ngay toog ba si ak mu ne njaab moo a neex njaab ak lu ne tamit bu déposé man sama yoon nekk si bulletin njaab bi laay ñëw xool kooku moom vraiment kenn kenn kenn mënu koo dindi donc loolu moom mi ngi am ba tey vote ethnique dafay am ba tey. Hmm. dafay donte ñenn yi dañ koy jéem a dàq ak am am na ñoo xamante ne dañuy voté par waaso. amna na. Mhm. ñom dañuy parce que euh, sam papa parti bo loolu milité wala mm. donc vote Sénégal liko expliquer expliqué surtout yene dëkk yi c'est pas pour rien euh, ay Fouta yi man lutax tay dem Fouta dem fa duma duma Nous déposer sama candidature. ah pourquoi ndax non non non du lolu mais làkk bi day parce que nga communiquer ak nga wax ak ñu fa samp Daouda Diallo. Mm. Mm. mi Ibrahima Euh, mi Cheikh Omar Anne ñoom ñëpp dañu am benn dénominateur commun. ñoom ñëpp da ngay mën a làkk mën a wax a population autochtone yi. mais tey boo ma jëlee man nga yóbbu ma fa ne tey jii ne ma yow Moustapha dëkk nga fa il y a 6 mois wala dëkk nga fa il y mois wala dëkk nga fa il y a 1 an ma am sama kër Fouta élection jot ma ne damay dem xool ndax naa gagné. Hmm. d' day am benn barrière bu am. donc c'est ce qui explique euh, Ousmane Sonko buy dem euh, si li nga vous mo nek ci euh, foot, ak même ci mu yobbu ministère nga ñoo ñoo bokk fofu ñu bokk fofu ñom ñom lay andal parce que dafa am affection xam nga ni ki mu bokkal. mom lay gëna a mom lay gëna a hmm. ki mu bokkal mom lay gëna a tay ji tamit bi dem ci sud bi and ak ministère nga sud bi lañu bayiko ñu gungé ko ñu and ñu dem bo duggé ki def ni dañuy sentir kon ñun bokku nañ ci gouvernement bi ñun yëg ñu ñun bokk nañ te loolu Sénégal moo bindoo noonu. finalement est-ce que li nga xam ne moo nekk programme. Mhm. am na solo euh, si euh, politique Sénégal parce que boo xoolee aussi ñuy voter la plupart du temps ñoom duñu ñu xool sax li nga xam ne moo nekk programme ak tamit bu ñu jëlee aussi euh, la réalité socio-culturelle aussi mun nañ ni wàllum programme sax les Sénégalais duñ ci bàyyi xel. non mais xoolal aar Sénégal lu ñu amoon. contrat de législature la ñu indi de yaa ngi koy fàttaliku mhm. bu ñu leen invité ku nekk toog génnee seen contrat de législature naan gis ngeen ñun lii dañ koy def lii dañ koy def lii ak mhm. am lu am te nit yi ñu ñoo fi indi contrat de législature bind benn texte ñu teg ñoo naan lii ak lii lañ bu ñu demee assemblée bu ñu amee def lii ak lii mais nañ leen lu ñu leen doon wax seen débat dafa kawe woon maanaam fi ngeen doon waxee ak fi sénégalais nekk du benn da ngeen waroon wàccee débat def bal à terre ngeen football ak sénégalais yi. donc loolu moo tax ñu mel ni comme ay hommes politique ñu mel ni comme ay Ibrahima Fall. ñu loon convaincre les sénégalais du dem du dem du du passé du jàll intellectuel yooyu bu ñëwee du jàll. Hmm. li jiitu li nga war a njëkk jaay mooy sénégalais bëgg la. Mm-hmm. te xam nga sénégalais bëgg la parfois am na loo xam ne da nga koy liggéey mais am na loo xam ne tamit parfois. ça vient naturellement benn charisme bu naturel lay doon. Hmm. loolu Abdoulaye Wade moo ko fi bénéficié ak hmm. Ousmane Sonko benn benn benn charisme bu naturel boo xam ne dafay dafay dafay dégagé wu nit Abdoulaye Wade li ko may mooy yàgg gi mu yàgg ci opposition bi. Mhm. Ousmane Sonko li ko may mooy Macky Sall daf ciy contribuer. Mm. maanaam le fait que mu jàkkaarloo bi yàgg lool tamit sénégalais bëggul ku ñuy jaay doole bëggul ku ñuy néewal doole ñu bëri ñoom daw sotle ko. Euh, mu am euh, tey jii li mu am nii. moo tax boo xoolee ba ci biir da ngay gis ne am na ci euh, langue politique bi. Mm. ñoo xamante ne bëri na si ñoom tey jii mën nañoo politique fii ba 10 ans wala 20 ans mais duñ mës a drainer ful. parce que dañoo ñàkk xorom. <laughs> non am na. no am na leader yoo dañoo ñàkk xorom te leader leader bu ñàkkee xorom am na 95 pour cent politique am du dem. am na ñoo ñàkk xorom ou bien le discours euh, ñi nga xam ne moo nekk